laa ilaaha illallaah bismillaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim salaamaaleykum wa rahmatullah bokki jullit yi bokki taalibe ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax ci dellu si ginu dellu si fii ci Mawahibou TV di jaajëfal borom site bi di Serigne Mbaye Diaw di jaajëfal mboolem ahlu Cheikh Mansour gépp tey nag ñu nekk fii ci tool yi nga xam ne mooy tool yi gerle liggéey bi nga xam ne sëñ Moustapha Mbacke Mouhamed jox na ko mboolem ahlu Daaru Xudoos gépp euh, ñun nag ñu féete ci waa kër Baye Serigne Diom Mansour ñu fas yéene waxtaanee tolluwaayu liggéey bi kon ne xam ne ne liggéey bi ab liggéey la boo xam ne bu yaatu lool la te it bu metti lool ñëwit ci jamono ju xat jamono joo xam ne baykat yi ñu ngi waajal seen bopp euh, ñu jóge ci weeru koor wu tedd wii dëgmal tabaski ñu xam ne kon diggante bi diggante boo xar la waaye kenn ku ci nekk rek euh, mu fas yéene cee def yéeneem ak pas-pasam ak pasteefam te xam ne liggéey yàlla la liggéey yonent bi te liggéeyub sëriñ bi la ndax ak jaamu yàlla rek lañ koy jàppe ñu xam ne nag lii ñu fas yéene defar fii mm, liggéey la boo xam ne bu sottee mbooleem ñu ko yëg ak ñu ko yëgul ñëpp mën nañ cee jariñu mën naa doon njariñal askan wi di njariñal réew mépp kon liggéey bi liggéey bi ñëpp la na ci ñëpp def seen yitte def ci seen alal def ci seen xalaat def ci seen i xam-xam def ci seen doole ñoo ngi woo ñi nga xam ne ñëwaguñ nañ ci ñëw ndax ab liggéey fa am ñi nga ñi nga xam ne seen addiya dugg nañu dolliwaat ñi seen addiya dugg nañ dugalaat seen addiya ñoo ngi jaajëfal ñëpp nag di siyaare ñëpp wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu a wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe noo ngi yalla bu baakha baax di julli ci sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sant cheikhna Cheikh Mansour Diaw radiyallahu anhu di gërëm Baye Serigne Diaw Mansour ci positif bi nga xamanteni yalla def na mu bayal nuko fi waye di ñaanal Serigne Cheikh Diaw Mansour sun borom yagal ko ci sunu kanam mu melne ndigal li nga xamne ne nako ci Serigne mustapha mbake muhammad te don ndigalul gajji ak gor ay garab ak gajji ay ek dejji ay ek ak ngeer ak ak rat ak ak sumpu ci tool yi nga xam ne mooy mooy Daaru Minam Taïf yàlla dogal tey nag di sunu ay bis guñ fi am ndax alxamis lañ départoon waaye àllarba la mbooloo mi nga xam ne ñooy organisation yor organisation bi àllarba lañ départoon ngi ñëw defar dal yi kon am nañ fi ay bis ci tey mel na yëg-yëg bi nga xam ne murit yi am nañ ko ci liggéey bi nag mooy na sahabatu rasul sallallahu alayhi wa sallam nekk woon ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mooy na mag ñi nekk woon ci ginnaaw si Ahmadou Bamba xaadim rasul muy Eh, di xaar ndigal ci serigne bi te bu len ko joxe ñu jëfé ko nako serigne bi bëggé mo melne ne ba yoonu tambalé ci mbacké kadior ak la ko jitu waye it eh, ginaaw mbacké kadior ndénkaaneb serigne bi ak ko bëggam moy gor ay dëkk sanc leen gor ay tol di bay di jox serigne bi waye di bënn ay ten ngir gor eh, jullit yalla yi man ci noonee mooy liggéey bi nga xam ne Cheikh Mahamadul Moustapha Mohamed waxoon na ko Serigne Cheikh jaw ci njëlbeen nga muy da ko daan laaj alal muy xaalis di tabax ay hôpital di tabax ay daara di tabax ay école waaye da ko daan wax ne ko liggéey yaa ngi ci sunu kanam mu mel ne liggéey yoo na nag liggéey yooya nag bii mooy tàmbalib liggéey yi muy gor bu mag bii nga xam ne Cheikh Mahamadul Moustapha dana koo liggéeyloo ba noppi nag wàññee ko ànd kook ñun li ma daan wax naan Cheikh Moustapha da lay liggéeyloo ba pare lam lay defloo mu ànd kook yow nekk sa kanam ndax ajjuma la fi ñëwoon moom itam ànd ñun liggéey bi jógewu fi benn yoon waaye it yitte ji nga xam ne murit yi am nañ ko ci liggéey bi dafa mel ne day gën dañuy gën a bees saa bu nekk ndax nii ñu nii ñu jëkkoo ëkk yi kat wax dëgg yàlla yéeme na ndax ëkk guñ ak gu nekk ak lu ëkk gi rëy rëy dañuy gas wër ko buñ gasee ëkk gi ba wër ko ren bu nekk ci ëkk gi ñu dagg ko buñ ko yëngalee rek day fàqati ko mu mel ne kon liggéey bi jamono ji ñu toll daal góor yàlla yi suñu borom sol na leen ay xéewal waaye sol na leen ay eh, so so sol na leen euh, mbóot mu rëy ci seen i jëmm ndax yëguñu coono liñ fiy yàgg yàgg tey la ay bis waaye amu ci kenn koo xam ne da nga ko gis ba jàpp ne moom kat yàgg na ci tool yi dañuy gën a beesaat waxtu wu ne di gën a amaat puissance di gën a amaat courant di gën a seen xol di gën a nangu loolu rek la ñu gis ci ñoom loola nag dafay mel ne liggéeyub sëriñ bi la waaye li gën a yéeme ci liggéey bi mooy Euh, tàngoor wi mu tàmbalee woon ak seddaay bii mu nekk tey nga xam ne suñu borom dafa làq jant bi defal ñu ab seddaay bu yéeme nga xam ne biig xaw naa taw sax ci sunu kaw loolu nag di taw feex joo xamante ni ne ba tey ay ngëneel la lu suñu borom andil ci liggéey bii nga xam ne mooy Daaru Minam Taïf kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi leen di soññu ñu xam ne liggéey bii mbóota ngi ci liggéey bii suñu borom gis na ko liggéey bii bokk na ci liggéeyu mag ña na ko mag ña daan defee di gor ay dëkk noonu la ko Cheikh Mouhamadoul Moustapha defee ndax toolub lislaam la toolub toolub sëriñ Touba la waaye tool la boo xamante ni ne sëriñ bi li mu ci yéene mooy bu ko tàmbalee rek Sénégal daal di naa am daal di def naataange xéewal yi daal di baawaan te noonee la ko waajalee ndax kat soppib liggéey soppiw doxiin liggéeyloo jaami yàlla yi mooy añ loo leen ndax ku lay liggéeyloo moo lay añ loo njabootuk Cheikh jaw Diaw nag miin nañ lii xam nañ ko kenn ku nekk ci ñun la la sa maam nekkoon sa waajur toqantal la ca loolu rek ngay wane boo xoolee ci biir góor yàlla yi da gis ñoo xam ne da lay leer na lii seeni cër mënu ko waaye seen xolo ko nangu boo xoolee ci góor yàlla yi da gis ñoo xam ne duñu ay baykat xamuñuy tool waaye seen cër nangu na seen xol nangu na lu ñu defloo seen cër mu def ko boo xoolee ci góor yàlla yi kenn ku ci nekk la nga mën yaa ngi koy def mu mel na kon ni ñuy bàkkee góor yàlla mi ngi ci biir njaboot gi ni ñuy bàkkee góor yàlla mi ngi ci biir taalibe yi ni ñuy bàkkee góor yàlla nàmm ko ba seex ba ba nga xamante ni ne danañu fàttali jafi mag ña ak doxeenu mag ña mi ngi ci biir ndaw ñi kon ndaw ñi wax dëgg yàlla nangu nan ñi ngi joxe seen doole ñi ngi joxe seen alal waaye li gën a yéeme ci liggéey bi mooy bu TV mooy liggéey bii boo gisee góor yàlla yi ci ne ñi ci ëpp dipp dencu ñu dépasse juróomi fan ci seen i kër te dañoo tëj seen i kër ñëw ñi nga xamante nii ne ñoo gën a néew doole gën a manqué dépasse ñoo gën a nangu donte ña man dara ñi ngi joxe waaye bàyyi sa kër tëj ko nga xam ne yow da nga daan lijjanti dépasse boo liggéeyul ñaari fan sa kër day tëjee doo am loo joxe yàlla dogal nag nga bàyyi sa kër ay bis joxe woo fa benn dërëm sëriñ bi wutu la ci kër gi di ko di ko lijjanti kër ga gën a neex kër ga gën a woom gën a gën a ala doome loolu sëriñ bi rek ko man kon sëriñ bi wax na ne kenn ku ci nekk dogalu la ngant mi ngi woo ñëpp Kipu ko xamne meuno ñew te yalla dimbal la nga man alal ju am nga am alal ju meuno ñew muy lu meuna dem ci liggey bi serigne bangi la ci wo liggey bi kat dafa doon liggey bo xamne soxna sa nek ci marché ba sax di yaxantu la yaxantu na ca boole leneen lu meuna ma màjjaal dajale ko andiku ci liggey bi ka nek kërëm te am frigo yu meuna defar glace na defar andiku ci liggey bi ki nga xamne dafa nek bitim rew muy njabatu Cheikh Mansour Diaw ga fa ne ci njiital sëriñ maam Gora Diaw ak sëriñ Mansour Diaw ñoom ñoom itam dañoo wax ne tukkikat bu nekk cinquante euro lañ la sas ndax dañoo bëgg a dajale lu gàtt gàtt un million ngir mën koo andi ci liggéey bi man jàpp naa ne sax dana ko ëpp góor yàlla yi nekk biir Sénégal ñoomitam ñoo ngi leen di soññ ndax am na ñu defoon am na ñu defaat am na ñuy defaataat te loolu mooy li sëriñ bi bëgg noo ngi sant yàlla bu baax di sant mboolem jëwrin yi nekk ci kanam njaboot gi waaye di sant mboolem jëwrin yi nga xamante ni ñoo yor piki yeeg peel yi ànd ak mbokk yi ak taalibe yi di ko liggéey di sant waa Mouwahibou TV ci seen taxawaay jëwrin sëriñ Mbaye jaw yitte ji kawe na taxawaay bi rafet na gis nañ na bëgg-bëgg bi am na waaye sëriñ bi mën na lépp sëriñ bee yor lépp ku ko dénk sa bopp dénk ko sa programme dana la yëkëti ba nga khol ba ku lay xol da ngay téen yalla na ko suñ borom def télévision bo xamné day war aduna bi yépp ci barké bi liggéey bi ñu nekk alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. wa barakaatu eh, jëf sëñ Ama wax ji matalé na rafet na ah, loolu rek leen bëggoon ñëpp xam ko daanaka kon eh, amul amu luñ ci doli ndax lepp matna. ñu ah, ñoo ngi sant eh, nag ñëpp sant yalla bu baaxa baax di ñaan seen Cheikh sama borom yokk wér gi yokk wir gu baax a baax a baax ba mu dellusiwaat ci kanam njaboot gi di di ko jox ay liggéey ñu ànd ak moom ci liggéey yi ko sëñ bi joxe yëpp. waaw loolu daal moom lañ moom lañ ñaanal moom lañ ko ñaanal ci barke Sëñ Tuubaa Cheikh Moustapha ci bu gaaw a gaaw gaaw nag waaw balaa liggéey bi egg daal na ko yàlla jox kattan gu wér ceeb gu gam amoon. li mu ba ni mu bëgg liggéey sëñ bi ak yéene ji mu am ci liggéey sëñ bi yëpp mu mu def ko na ko bëgge loolu moom lañ ko ñaan fu mu di gërëm ñëpp nag gi sant ñëpp ndax liggéey wax dëgg yàlla ñëpp jàpp nañ ci ñëpp ngi fi ñëpp a ngi ci tool yi waaye lu man yaa ngi ca ñëpp a ngi góor góorlu baax a baax a baax ah, dara moom moom ñëpp ñëpp daal ah, ñu ngi liggéey baax a baax a baax ah di gën a soññ bu baax rek bokk teel bi ni ko suñu am ma waxee moom daal lépp lu waay man ci ay ndimbal moo xam ci liñ jëfandikoo la moo xam matériel la moo xam lu mën a doon moom lu ci lépp lu am daal loo ci man kenn ku ne daal bul xeeb bul yéem lo mën na nga koy def na nga ko mëne ndax loolu bokk na ci li nga xam ne doxal liggéey bi wax dëgg yàlla ñuy liggéey jàmbaar la ñu lool nañ fexe ba liggéey bi daal dara bañ cee sooxe loolu mooy li am solo am nañ ci yaakaar bu baax nag ndax liggéey bi nga xam ne moom la ñu simusuwi joxe nii bu réerée boo xam ne simusuwi da koo fonk ba boobu ba fii mu ne noo ñoo moom ñoo bokkoon nekkandoo ci tool yi mi ngi fii ci tool yi boobu ba ñëwee ba tey ñoo mi ngi fi te jóge fu benn yoon. waaw wër ne daal yëpp dem na fenn fu nekk gis nañ nit ñi ñaanal na leen waaw ko nag loolu nag sant yàlla ci ak xel mu dal kon nañ ci gën a góorgóorlu bu baax fu waay mën a ne ci biir réew ak bitim réew lépp loo man nga ci ay ndimbal ak matériel ak lu mën a doon nga def ko ndax moom loolu mooy doxal liggéey bi kon ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. wax deug yalla sant nañu baax baax baax jërë ngeen jëf di ñu am wax dara suñu am wax daal bu ci doli dara kon jërë ngeen jëf wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu ah di ñaanal sëñ bay Diop mi nga xam ne moom mooy bu tv kon ni ko am wax rek yalla ne daal sama borom bi daal fu mu bëgg def fu mu bëgg ag yalla ko yalla agale rek ci barke si tiwa barke Cheikh Moussa jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu kàddu yi am na solo tay it wax deug yalla matale na lool ñaan suñu borom yagal la ci sunu kanam jëwriñ ju mat jëwriñ nga jo xamne wax deug yalla képp koo nekk ci kanamam pastifam dana yokk bëgg-bëggam dana yokk xemmem teefam dana yokk ndax sa lépp sëriñ bi la minal xadimi ilal xadimi kon noo ngi sant yàlla bu baax a baax di sant mboolem mbokki taalibe yëpp nag ci liggéey bi nga xam ne nekk nañ ci waaye kenn ku ci nekk yitte ji nga jox liggéey bi rek wax dëgg yàlla kawe na lool ndax kenn ku ci nekk euh, ñi nga xam ne ñëw nañu saa bu ñu xëyee bu ñu nee ñu jóg waaye ñi nga xam ne ñi ngi ci kër yi ñëwuñu it wax dëgg yàlla def nañ yitte liggéey bi waxtu wu bu ñu xëyee ay xéewal yu fi indi rek la ñuy dajale yàlla na suñu borom dëppale ñu ngërëmal sëriñ bi la ma daan wax rek Cheikh Moustapha Mbacké moom boo ko jubee mu lay ree boo yegsee mu la ci boppam loo xam ne dootoo bëgg a jóg te loolu taw feex la lool wax dëgg yàlla loolu mooy li nga xam ne mooy moom euh, dafa yore njëriñ te amul lor njariñ loolee mu yor nag la bëgg kenn ku ne jariñu ci njëriñ loolee la bëgg kenn ku ci nekk boo nekkee ci wetam bokk ci nguur yàlla yi nga xam ne suñu borom takkal leen ay médailles médailles yooyu nga xam ne moom la ñu takkaloon mag ña moom la Cheikh Moustapha Mbacke di takkal mboolem góor yàlla yi yàlla na sunu borom yàggal ko ci nu kanam yàggal fi Serigne Cheikh Diaw Mansour ak njabootu Baye Seen Diaw Mansour nu yàgg seen gannaaw te yàgg jëfe seen i ndigal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. la la ilaha